إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله mbokk jullit yu tedd yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ngal la waay yow jaamu yàlla bi foo tollu bokkal ci ñiy sant yàlla ak loo mën a nekke ñi ngi seede na yàlla dong moo yeeyoo ñu koy jaamu kenn warul sukkandiku wala ngay yaakaar wala ngay ñaan kenn ku dul moom jalla wa ala di seede na yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yàlla tegoon ci njub ga gën a jub ci jub yi di fàttali it ni la gën a yiis ci li ngay def ci diine ji mooy lépp loo xam ne dañ koo sos gannaaw yonente boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay yéen bokk jullit yi xam leen ni ñi ngi wéy di dund ci fukki fan yi nga xam ni moo gën ci at mi yépp fukki fan yooyee nga xame ne nii suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam ba mu toogeeg sahaaba ya nee na leen day fukki fan yu ubbi weeru tabaski jëf jëng cay defal yàlla moo ko gënal beneen jëf boo ko mën a jëfal bu fukki fan yi paase saxaaba yi na ko waaw bu dee ne nag jëf joojee jihaat la ci yoonu yàlla mu ne même jihaat ci yoonu yàlla li muy kawe kawe jëf ba nga def ca jëf ca fukki fan yi moo gënal yàlla jalla wa ala xanaa lu dul jihaatkat ba génn ak alalam ak bakkanam alalam des fa bakkanam des fa mbokk jullit fukki fan yooyee la ci ëppoon romb na tey jii mooy juróom-ñetteelu fan ci li nga xamee ni nii mooy weeru tabaski kon mën nañu wax ne ñetti fan moo ci des muy suñu bisu tey bi ak ñaari fan ya ci topp su dee yàlla wërsëgaloon na la yaa ngi nekkoon ca sax ci jaamu yàlla ngal la way jaamu yàlla googee seetal noo koy yokkee ca ñaan yàlla mu nangul la bu doonte ne it jàppoon nga ne dëgg-dëgg juróom-ñaari fan yi romb moom sàggane naa ko ngal la way ñetti fan yi góorgóorlu ci sa kemtalal kattan loo ci xam ci jaamu yàlla ci julli ya ca koor ya ca génn sarax ya ca def lu baax ci zikrullah ngal la way nga teqoo ak moom xam leen ni bokk na ci ngëneelu yàlla fan yi nga xam ne moo ci des mooy fan yi gën ci fukki fan yooyee la gën ci bis yépp ci at mi yépp mooy bisu samedi bi ñuy séentu ca mooy bisu arafa bisu arafa boobee suñu borom yàlla màggal na ko lool moom la tànnoon daldi ciy matal suñu diine ji ba yonent bi di aj màkk ci arafa suñu borom wàcc ci moom ni bis ni ki tey day matal naa seen diine mi ngi noonu naka noonu it la nga xamee ni nii moom mooy sumay xéewal ci yéen da ngay gis ne nii mottali naa ko ca it gërëm naa lislaam mu nekk seen diine loolu mbokk mi ngi amoon ci bisu arafa mu nekk bisu it bu mag ñeel lislaam di bis bu yàlla tànn di ci jéggi la ay bàkkaar waaye it di ci nangu ay ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni ñaan bi nga ñaan ci at bi yépp ñaan bi nga ñaan bisu arafa moo ko gën loolu mu lay jàngal ni at bi yépp de mën ngaa nekk di ñaan benn soxla yàlla nangulu la ngir ay mbir waaye bisu arafaat ci ngëneelam mu nangul la loole yonent bi alei salaatu wasalaam it daan na ci wax ni la gën ci lu doomu aadama di ñaan mooy li nga xam ne mooy la gën ci li ma mas a wax ak yonent yi ma jiitu yépp ca mooy ngay wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir loolu mooy kenn yeeyewul ñu koy jaamu ko dul yàlla moom kese amul benn bokkaale mboolem moomeel nguur gi yépp moo ko moom mboolem sant yépp moo ko moom ca mooy ki am kattan ci lépp lu mu mën a doon yow boo seetluwul da nga naan mii lii du ak ñaan fekk mooy ñaan gi gën a mattale ci ñaan yi ndax bi nga naan yàlla lahul mulk mooy xam nga ne kon yàlla moo la moom moo la sakk mooy dogal ci yow lu ko neex bi nga naan lahul xamd mooy mbooli mi xéewal ci yàlla rek lay jóge ndax moo moom cant yi kon na doon loo bëgg doom sëy alal jàmm aafiya mucc wér ci feebar loolu lépp mbokk xéewal la goo xam ni ci loxo yàlla kese la nekk bu ko defee nga tëje ko ne yàlla moo am kàttan ci lu mu mën a doon loolu it yow doomu aadama mën ngaa jaaxle ma mën fu may jële jëkkër fu may jële jabar sama feebar bii naka lay def ba mu wér ma mën ñàkk gii ma nekk lan moo koy teggi sama tumuranke bii kañ lay teggeeku loolu yow sa xalaat ak sa kattan dafa limité waaye sa borom yàlla mooy ki nga xam ne huwa ala kulli cheyin qadir loolu mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu ñaax bus bu nekk yow nga góorgóorlu wax ko téeméeri yoon nee na ki ko wax téeméeri yoon ci benn bis yowmal qiyaama kenn du indi jëf bu gën a rafet jëfam ci bis boobee xanaa lu dul ko wax lu ko ëpp loolu kon bu ñu ñaaxee ñu koy wax bi su arafa nga la waay wax ko ñetti téeméer juróomi téeméer junni yoon lu ëpp junni yoon ca mooy nga la waay bi su arafaat yépp jagleel leen ko zikrullah jagleel leen ko ay ñaan waaye jagleel leen ko ñaan gi gën ci ñaan yi laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir kii di usaama ibnu zayd nee na yonent bi alayhi salaam ba muy aji màkka day man la toggoon ca kaw giléemam ga ñu bokk giléem ga waaye ba mu jullee tisbaar gannaaw ba ma nga yëkkate ay loxoom di ñaan sallallahu alayhi wa sallam di ñaan di ñaan ba toll nañ benn place giléem nga xaw a jeng ak moom lii di ah laab yi mu ko téye woon wadd yonent bi dafa jël laab bi ci benn loxoom teewul benn loxo ba moom ma nga continuer jëm koo sama muy ñaan bi mu defaraatee laab gi tegalawaat ñaari loxo ya ca mooy journée arafat yépp a rasul sallallahu alayhi wa sallam mi ngi taxaw di ko ñaan ngalla waaye góorgóorlu leen mbokk samedi bii di ñëw ñu góorgóorlu bu fajar fenkee ba ba jant ba di sow ngeen baril la nga xam ne mooy wéet ak seen boroom ñaanal seen bopp ñaanal seen njaboot ñaanal seeni waajur waaye ñaanal lislaam bi yépp jullit yi ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf mbokk gis nañu ni loolu nga xam ne mooy yowmu arafaat suñu borom dana ci jox malaaka yi ay ordre ci nit ñoo xamee ni nii dana génne seen tur ci safara yàlla na yàlla boole ca suñuy tur ca moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax mooy bisu arafa amul benn bis ci bis yi boo xam ne yàlla dana ci goreel ay nit ci sawara lu mel ni bisu arafa dana jege ay jaamam moom mi nga xam ne dara mirul ne moom woo malaaka yi asamaan yépp da leen xolli sama jaam yi nga xamee ne nii jóge nañ fu nekk ñëw taxaw fii ci arafat ñëw doon loo xamee ne nii dañuy nekk di yaakaar sama ngërëm di yaakaar ma jéggal leen loolee mbokk moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala dogal gannaaw taxawaay bu màgg boobee te suba ga suñu borom def ko mu nekk feet boo xam ne mboolem jullit yi nekk ci kaw asamaan yépp dañuy bokk feetu loolu ca mooy bisu tabaski ba mbokk yow mu arafaat xamal ne doomu aadama di gën a diis ci yow bu dee xam nga wallahi du feebar bi la dal na doon cancer la lu mën a doon wallahi du ñàkk gi la dal du prison bi la dal xam nga lan mooy musiba doomu aadama bi gën a rëy ci kaw suuf mooy bakkaar yi gàllu ci loo samp amma la nga xamee ni nii moom mooy bisu arafat suñu borom yàlla subhanahu wa taala day danga gis ne dana jéggal waa arafat waaye dana jéggalit la nga xamee ni nii teewe wu ñu arafat keroog ba mu ajee ajam gu tedd ga jàkkaarloo nag sahaaba yi na leen jibril alayhi salaatu wasalaam day yàlla yónni na ko ci man léegi mu ni mboolem ñi teewe arafat jéggal na leen amar ibnu xataab jóg na ko mais yow mi yàlla yónni ndax ñun rek lay ñeel wala ñi ñëw ba ila yawmi diin mu ne ñii ñëw ba ila yawmi diin loolu mbokk mooy ñi teewe arafat amma ñi teewul arafat ci jullit ñi nag ñoom ana nu ñuy amee njéggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni képp koo xamee ni nii bisu arafat woor nga ko yàlla dana la baal at bi nga génne yépp la ci nekkoon ci bàkkaar ak at bi nga dëgmal yépp la nga ca am ci ay bàkkaar loolu mbokk mi ngi am ci samedi bii di ñëw ngalla way woor leen ko bari na it léeg-léeg ay ndaw yi toll ci buntu xam-xam mën nañuy dégg yenn fatawa yoo xam ne ni day tax ñuy jàpp ne samedi kenn du ko woor waaye ngallaawaay mbokk détail yooyu xajul ci xutba waaye ñi ngi lay xamal ne jumhurul ulama dañoo gis ne samedi boobee ah lañ cay bañ mooy nga tëb rek jublu ko di ko woor waaye bu bokkee ci woor yi nga xam ne dañ koo yoonal comme arafat comme ashura comme sawmu daawud wala ayaamul biit loolee mbokk kenn bañul ñu daal di koy woor bokk na it mbokk lu ñu war a góorgóorlu fukki fan yëpp waroon na nekk fukki fan yi zikr fukki fan yi kabbaral suñu borom waaye rawatina nag buñ demee ba suba ci fajar muy yowmu arafa ca la ñu war a gën a góorgóorlu continuer ci la nga xamee ne nii moom mooy suñu zikr yooyee di ko baril di ko kaweel nit ñi dégg ko ca la ca gën a mat mooy allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd lii mbokk ñu baril ko baril di wax allahu akbar di baril di wax laa ilaha illa allah di baril di wax alhamdulillah ci xéewal yooyu nga xam ne defal nañu ko mbokk loolu ab tënk la woon ci yowmu arafa waaye gannaaw yowmu arafa it am na bis bu màgg bu nekk ci gannaawam muy la nga xamee ne nii mooy bisub tabaski suñu borom tudd ko wala fajri wa layalin ashr suñu borom ne moom mooy yowmul xajjil akbar de bis boo xam ne nii mbokk bis bu màgg la suñu borom yàlla subhanahu wa taala dogal nit ñi def nañ la gënoon a màgg ca at ga mooy jóge nañ arafaat sànni nañu seen i jamaraat ña nga lekk léegi ca mina summi nañu seen i yëre ñoom ñépp dellu ca nañ meloon loolee suñu borom yàlla def ko it ñeel ña nga xamee ne ñooy ujaaj ya waaw waaye nag ñi nga xam ne ñoom aju ñu nag ñoom ni ma niñ ko waxe woon sànq ci yow mu arafa waa arafa ñoom amuñu droit woor yàllaa ngi leen jagleel xéewal gu màgg ñi nekkul arafat dañuy woor waaw waa màkk yi nga xam ne nag ña nga mina di sànni seeni jamaraat di rey seeni hëdiyu waaw jullit yi tasaaroo ci kaw suuf ñoom nag luy seen mbir suñu borom yàlla yoonal ñooy mit ñu dem dajaloo ca jàkka ya dajaloo ci julleekaay ya julli fa ñaan yàlla mu wàcce leen xiiwal yu mel ni yam wàcce woon ca arafat suñu paree dellu ca kër ga rey la nga xam ne mooy seen hëddiyu comme naka waa Mekka di reyee loolu it mbokku ñu nit donte ni ne suñu borom yàlla nattoo nañu ab juyoo boo xam ni képp ku ca sellal insha allah yàlla nangul la waaye bokkoon na la gënoon a rafet gënoon a matale mooy julli te àdduna bi yépp ànd ak waa makka ca la nga xamee ne mooy julli it googe ànd ak waa makka ca rey googe nga xam ne dañ koy rey tabaski ndax tabaski yooyu ñuy rey ak iid yooyu ñuy rey nekkul lu dul ab jeexital ca aj gay am ca aj ca makka loolu it moo tax ngir bala ñuy fàtte ñu xamal leen ne incha allah bokk nañ ci ñi nga xam ne bisu dimanche ba daañu ànd ak waa Makka julli daan julli ci jàkka ji bu soobee yàlla bu dee ni neuf heures jot na donte ne ñu ngi cay booleeg ñaanal ña nga xam ne nii julliwuñu donte ne ni yow mi nga xamee ni it da nga am la nga xamee ni ni mooy kattan xamal ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala day yoonal na ci yow nga daal di rey tabaski yoonal nañ ko ci këru jullit bu nekk ñu rey fa am xar loolee bu dee seen kattan may na leen ko kër ga bu doon téeméeri ñi dafa nekk bu ñu farayee benn xar doy na waa kër ga yépp xar moomi loolee ko cay dolli day dolli ngiree ak sàkku tuyaaba waaye bu dee rek la ñuy tudde mandarga tabaski benn bi doy na ñépp loolee bu amee islaam tëral na xar moomee ñu rafetal ko moytu ya ca yonent bi aleyhi salaam waxoon nañ moytu bépp xar mu pat moytu xar yu lafet moytu xar yu feebar moytu xar yoo xam ne loof nañu ba mënuñoo am dara ci yàpp loolu it borom xam-xam yi dañ cay dolli feebar yu mel ne yooyu yonent bi tudd wala ya nga xam ne moo ko gën a màgg masalan yonent bi tudd na xar mu pat tuddul xar mu gumba waaye bépp borom xel dalay may ne ki la tere nga rey xar mu pat xar mu gumba moom taxul ñuy wax loolu it yeneen ayib yi noonu la ko ci borom xam-xam yi waxee nga xool na mu gën a mate na mu gën a rafete nga wut ko ci alal yoo xam ne alal du teey la ndax yàlla subhanahu wa taala du nangu lu dul la nga xam ne mooy lu teey xar mooy mi ngay jënd maa ngi wax xar ndax waa Dakar xamuñu lu dul xar waaye juróom-ñaari nit mënoon nañoo cotiser jënd benn nag rey ko séddoo ku ne yóbbu sa kër ku nekk am tabaski su ma waxee juróom-ñaar juróom taxul may wax wala ñett wala ñaar loolu dagan na jullit ñi def ko dagan na it nga daal di tabaski bëy doonte ne waa ndakaaru xalaatuñu loolu waaye dagan na nga tabaski bëy gannaaw ba bu dee da ngaa dem bay tabaskee xarit la gën mooy xar me na am at su dee na amoo xar mu am at soo amee xar mu paase juróom benn weer baax na waaye ki am xar bu am at moom yonent bi alayhi salaam dani na rey boobu su amul nag mu doog a rey ak jasa mooy ba nga xam ne paase na juróom ñetti ah juróom benn weer mbokk rey googu bokk na la ci gën ñu rey ko ci bisu it bi waaye bisu it boobee nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca la doon rey moo ki saxaabaam teewul yaataloon na ko sallallahu alayhi wa sallam balaa dina ayaamu tashriq ca mooy bisu tabaski bi mooy dimanche niñ ko jàppee ñun ba baa ñetti fan yi ci topp yépp yépp bisu rey la soo demoon ci mazhab Maalik nag ñoom ñi ngi ko ñeme yemele ci ñetti fan yi mi ngi noonu waaye ala kulli xaal bis yooyu yëpp bisu rey la léegi nit boo reyul ci bis bu njëkk bi ca ëllëg sa booy rey nga bàyyi ba bëccëg nga rey donte na rey guddi baax na waaye rey bëccëg mooy la nga xam ne mooy la gën loolu dana la jàngal yow mi nga xamee ni nii yaa ngi dëkk ak ay nit yoo xamee ni nii jàpp nga ne su ma jëlee sama xarkat di ko rey mën na am ñagg-ñagg suñu diggante soo gisee fa ñu war a jullee ji nga xam ne moom bisu fukkeel ba la man ngaa dem ànd ak ñoom julli bàyyi ba suba nga doog a rey sa xar loolu ñi ngi koy wax mooy ku ragal fitna amaa ku ragalul benn fitna xamal ne la gën mooy nga rey sa xar gannaaw ba nga julli jee ba ñëw comme naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee. xar moom itamit mbokku sopp nañu ca nga jël ca sarxe ca sopp nañ ca nga jël ca maye ca rawatina koo yëg ne kat moom reyul. mi ngi noonu sopp na ñit nga jël ca lekk yàgg sa waa kër donte na ñett yooyu yëpp boo ca jaglee loon xar mi it islam waxulu ci dara bu la neexee rey lépp may lépp mi ngi noonu ba da ngay gis lu bari ci ñu dëkk ci européens yi wala américains yi gox ya ñuy nekk mënuñu faaree tabaski dañuy yónnee fii Sénégal ñu jëndal leen xar reyal leen ko xar moomay duñ ko mos seen jabar du ko mos waaye teewul am nañ tabaski loolu ñu bàyyi ci xel bu baax boo santee caam jël xar mi yépp rey dugal sa frigo lekk ba mu jeexit du tee am nga tabaski waaye la gën mooy nga mayee ca nga sarxe ca mbokku julit xam leen ni lii nga xamee ni nii mooy bis bi di ñëw suñu kanam te ñun ñu jàppe ko dimanche bi di ñëw insha allah bis bu yàlla màggal la lool san yonent bi alayhi salaam santoon ñépp ñëw fekke ko mu ne jigéen ñi ñépp nañ dem même jigéen ñi ànd ak baax nañ dem ci julleekaay ba su ko defee ñu toog ca gannaaw ngiree ñu fekk yiw yi yàllay wàcce ca jotaay boobee ngiree ñu ànd ak jullit ñi ca ñaan yooyu nga xam ne dañ ca war a ànd su ko defee yow bisu iit bu jotee sangul comme ni ngay sangoo farata xoolal la gën a rafet ci sa yére nga sol ko bu dee lu bees a mooy la gën gannaaw ba la gën mooy bu lekk xanaa lu dul nga dem ba ñëw la ngay jëkk a lekk jóge ca xarma waaye boo lekkee dara newu ci waaye sopp nañu da ngay jëkk a lekk nekk ca xarma sopp nañ bi nga génnee sa kër bi nga génnee mbedd bi boo ñëw nga jaar bañeen mbedd lii mbokk da ngay gis ni ay teggin la yoo xam ne am na suñu jullee ba pare kum neex man ngaa rey sa xar na doon imaam rey nag imaam reyul loolee moom la ñu yonent bi alayhi salaam doon tëralal xarma mi buñ koy rey nañ ko yërëm daal di daas paaka ya nga wax bismillahi wallahu akbar yéy na ci sa xol ne lii day yaa ngi koy reyal sa bopp ak sa njaboot boo ko waxoo nit lu baax la yàlla lii ñeel na ma maag sama maag sama njaboot lii lépp mbokk da ngay gis ne kon ab tënk la boo xamee ne nii moom la ñuy tënk ci wàllu at wàllu tabaski googe la ca des it xam ngeen ko ca mooy bisu balante àq la bisu ziyaarante la bisu feeñal mbégte la loolee kon ñi ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala yàlla nañ ca yóbbu ci jàmm ñi ngi ñaan it borom bi xam nañ ni Sénégal yi duñ ko defandoo waaye juwee ba cay am yàlla na yem ca jëf yi yàlla bu ko yàlla yëggale ci xol ya yàlla na yàlla boole ñu nangul ñun ñëpp yàlla nañu yàlla wàcceel la nga xam ne mooy jàmm ak xéewal ci suñu réew yàlla na yàlla wàcceel ñu la nga xam ne nii mooy xol yu booloo yàlla na yàlla wërsëgal ñu nawet bii ñu dugg ca taw bi xaw a tag ci Sénégal gépp yàlla ci ngëneelam ak xéewalam yàlla nañu dabantal nawet bu barkeel ci ndox moo xam ne day ànd jàmm ak xéewal yal na yàlla rafetal suñu mucc te ñun ñëpp mu defal ñu àddina muy suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxasirin allahuma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama اللهم ربنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين